ñu fàttali ni association consomateur du tey rek la am Sénégal yàgg na fi am euh, ci euh, loolu itam ñu ngi sargal euh, di gërëm ñi nga xam ni ay pionnier lañu woon ci mouvement consumériste fii ci Touba sëriñ bi dégg mu wax santé éducation maanaam problème yëpp am nañu secrétaire boo xam ni li mu wax yëpp daf koy jël te dañ koy enregistré aussi loolu yëpp kon mënuñu ni lii mooy problème bi wala lii mooy problème bi fépp la foo dem rek ak problème am waaye problème bi c'est dëkkuwaay bu nekk dafa am spécificité comme ni Touba ni mu waxee nii Touba dafa am loo xam ni Touba la am am problème boo xam ni Mbàkke la am am problème boo xam ni Tambacounda la am wala feneen ak feneen fu ñu jëm rek am na waaye rek ñun nag suñ boo ñu indilee problème yooyu dañuy ñëw na segg problème yi diwaan bu nekk ñu xam problème ba fa nekk bu ñuy wax ñi kay li jëm ci problème boobu ñu wax ak moom ci nii mu mën koo def ci teraanga ak sutura ak ak déggoo moo ñu gënal comme ni ma ko waxee léegi bu ko mënu itam ñu xool ñun yan jumtukaay la ñu war a mën a utiliser ba fexe ba loolu bu dee suñu àq ndax suñ problème yi mooy àqu jam àqu euh, askan wi ñu delloo ko loolu mooy suñu problème loolu nag lu mënu jaral dañ ko def waaye lu ñuy jëkkee mooy waxtaan ba juboo ci lenn ak ñi nga xam ne ñooy saytu mbir moom ñun li ñu indi ci cellule bi mooy yaakaar yaakaar munu fi indi ci fédération bi ndax dafa bari loo xam ne dañ koy jooy te jooy gi suñ ko jooyee mën naa am Touba la yem mën naa am département bi lay am mën naa am ci région bi lay yem bi fédération bi nag euh, sosoo ñu am yaakaar ci fédération bi parce que c'est pas parce que ñoo ngi door jëflante ak association de consommateurs waaye yéen am nañ seen yaakaar yaakaar ji nag dañoo bëgg ñun suñ kàddu fi mu mënta ak yéen ngeen àggale ko fa mooy ci li ma fi waxoon bu njëkk Touba c'est une espéciale spéciale qui est devenue une mais un métropole mais on nous considère comme un petit village loolu moo war a jeex loolu lañ bëgg mujj jeex te ci yéen lañ ko bëgg a jaarale li ci njëkk dañoo waxoon ne mooy problème de santé dëkk bi c'est la santé qui est malade c'est pas les les les les habitants qui sont malades c'est la santé qui est malade dañoo a jaaral ci yéen yéen suñu santé boobu feebar ñu jaar ci yéen pour faj jaar ci yéen ba suñu jigéen ñi nga xam ne ñi ngi dem ci hôpitaux yi yàlla dogal ñuy matu wala ñu ay jafe-jafe ñu fexe ba li ñuy wax pyramide sanitaire ñu respecté ko ci dëkk bi parce que dëkk boo xam ne 2 millions de personnes lañ waroon par exemple postes de santé am 30 postes de santé ñu am benn gabu 170 postes de santé kenn ku ne xam na ne mënoo respecter pyramide sanitaire bi pyramide sanitaire sibru ab poste de santé moo koy faj comme pyramide sanitaire bi kenn respecté wu ko ku sibru ci hôpital ngay dem hôpital soo fa demee un médecin nga fay fekk un médecin un traitement médecin lay defal ça c'est c'est très cher hôpitaux yi ñi ciy dem sonn nañ pourquoi parce que li tax ñu sonn mooy dëkk boo xam ne 200 postes de santé moo fa waroon nekk 30 personnel médical bi pression bi ñu nga xam ne moom leen dëkk bi teg attanatuñ ko donc liggéey bi ñu waroon a def dootuñu ko def kooku jafe-jafe la loolu aussi il faut ñu xalaat ci surtout le problème de Sénélec am nañ problème parce que dëkk boo xam ne nii deux cent deux millions de personnes lañ soo xoolee le sud gépp li fi nekk di nekk cent cinquante li nekk Touba cent cinquante mille abonnés soo xoolee sud bi nga xam ne nii mooy sud bi amuñu cent cinquante mille abonnés ci Sénélec bopp ba tey jii fi ñuy waxee tey am na ci décision xam ne Thiès la ñuy jógee pour ñëw di faj soxlay Touba loolu dafa loolu loolu yaakaar naa loolu loolu jaaduwul te ñëpp xam nañ ne jaaduwul jox la facture courant nga am trente cinq jours ci jour bi nga jotee facture bi ñu jox la délai le 5 juin ñëw le 17 juin ñu coupé la am na fi te je suis témoin parce que man aussi responsable laa boo xam ne maa ngi ci di defendre les les les les les les consommateurs au niveau de la Sénélec yooyu la ñu wax. école bi nga xam ne nii suñu doom yi ñu fi fii di dem di dem Mbàkke ñu xool budget bi nga xam ne c'est un budget de pour cent te un ab tontine la noonu dañuy teg te duñ teggi waaye li nga xam ne moom la teg te waroon ko teg ci sant di ko teg ci euh, euh, par exemple éducation mais fu mu jaar loolu lu mat a waxtaane la ak yu bare bare yu bari yoo xam kenn mënu koo lim problème de d'insécurité Touba soo jëlee Géejawaay ga nga dëkk ak Pikine nga boole ko neuf postes de police moo fa nekk wala sept ak deux commissariats te population yi ñoo yem donc on a un problème de sécurité loolu problème mu usagé la soo gisee ñun ñu taxaw ñun waa Touba ñëw am ci yéen yaakaar mooy danoo bëgg ñun suñ kàddu di ak Mbàkke danoo bëgg suñ kàddu fi mu mënta àggale ngeen àggale ko fa loolu moo ci dugal loolu moon nun moonu ci dugal su yaakaar jooju yàlla bu mu tas waaye dañuy continuer nun nag di xeex sunu combat parce que combat la boo xam ne nii ala kulli haal il faut ñu combattre parce que sëriñ dongo yi ñëw ci dëkk bi nekk ay usager il faut ñu góor góorlu nag man ak sama combat mooy liggéeyal njabootu sëñ Tuubaa gi ak liggéeyal taalibe yi man combat boobu laa bëgg a combattre beneen combat intéresé wu ma combat boobu rek moo ma moo ma intéressé boobu nag damaa jàpp ne man combat bi may mëne man damaa jàpp ne sëñ Muntaxa Bachir laa koy def ndax damaa jàpp ne fépp fu ab taalibe nekk moom moo for dem saytu la parce que ci loxoom la nekk waaye jot googu amu ko kon kenn ku ne ci nun kon fépp fu mu nekk war na faa nekk am sëñ Muntaxa Bachir di xool ci koñ di xool ci bitig yi di xool jafe-jafe yi te di ko dénoncé ba pare di ci wut ay solution maa leen di ziare bu baax